tomb bii ñu tànn di wa andir ashirataka al aqrabin danañ ci dégge ki war a woote nan la war a mel ak ku woote ngir lislaam nan la war a doxe ndax ku ne xam na ni woote moom bu fekkente ne lislaam rek moo ko tax a jug am na ay charte yoo xam ne du ca mën a ñàkk su dee kii woote day woote ci turu lislaam buñ fàtte ni solo si nga xam ne tomb bi am na ko mooy bis bi yàlla sàkk ñu gis ci sunu njabootu bopp ñoo xam ne dañuy salfaañee lislaam wala ñuy salfaañee war may yàlla te doon mag niti mbooloo te doon niti mbooloo di ko askanale it sëriñ bi ndax ku ne xam na ni benn woote boo xam ne sunu boroom sellal na ko ba nga xam ne ñay askanale seen bopp ca woote ba ñëpp mel nañu nañu war a mel amul woote bu mën a doon rek dana am ñu ca nekk te duñ mel nañu war mel waaye nit ku mel na mu war ku melul na mu war a mel nag te yamale ko ci boppam kooku digganteem ak boroomam la moom la engagé waaye jël yenn image yi walla yenn wax yi di ko askanale nag liggéeyu Cheikhul Khadim loolu moom su boobaa képp koo xam ne ci njaboot gi la bokk am na sañ-sañu wax xalaatam ci loolu ak gis-gisam ak lam xam ci njàngaleem Cheikhul Khadim te mu wuuteeg loola mu indi ci ay leeral kon ñi nga xam ne ci seen bopp lañ nekk nuñ mën a mel seen digganteeg seen boroom la waaye nag liggéeyub Serigne Touba bii moom ak woote yu bari yi nga xam ne mi ngi ci biir te li ci gën a doy waar nga xam ne moom mooy li gën a mat a bàyyi xel jëmm yi nga xam ne léeg-léeg ñu toog ci barab ñi ñu àndal di leen wooteel uluhiya ñu di ko nangu te nekk ci biir nag woote koo xam ne léppam tawhid la woon loola moom lu mat a dénoncé la lu mat a reeteet la moo tax fan yi maa ngi gis benn vidéo moo xam ne maa ngi ciy ndokkeel sëriñ Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ Chouaïb yaakaar naa ñu bari gis nañ ko kilifa gum toogal koo xam ne ab a jub naan ko yàlla nga waaye da koo diglu ba mu wax ba noppi mu woo ko ba ci kanamam ne ko lii nga ko wax bu ëllëgee da ko layoo ndax yàlla kenn képp la yàlla moom même bu fekkonte ne jànguñ alquran ba xamewuñ ci yàlla jànguñ hadis ba xamewuñ ci yàlla li Cheikhul Xadim taalif te bis bu yàlla sàkk ñu di ko jàng mën nañ ci xamee bu baax sunu borom lasta bi walidin wa lasta bi walad yaa rabba kulla walidin wa ma walad allahu mawjudun bi gayri muujidi wa innahu muujidu kulli muujadi kon yàlla moom kenn la kon képp kuñ koy jiiñ wala ñu dee ko wooyee nga ne cel umpule nga bu baax ki nga xam ne ci biiru liggéeyam nga nekk mu Cheikhul Khadim jëlale naa nag nga jël pouvoiram jël ay jëfam jël ay mayam di ko jox keneen ku dul moom yàlla loolu moo tax wooteeb lislaam ñu wax ne ki koy def dafa am ay charte yu war a daje moom ci jëmmi boppam am na yu war a daje ci moom la ca jiitu mooy war naa doon koo xam ne day am waajtaay wu mat sënk woo xam ne jafe-jafe yi mu war a jànkonteel ci woote bi dana ko mën a muñ dana ko mën a yem ñaareel bi war naa doon koo xam ne it xam na bu baax alxuraan xam na bu baax xadiis ndax kii woote ci lislaam ci ñaar yooyu rek la war a mën a sukkandiku ci la war a mën a dellu doo nit koo xam ne dafay xam war may doomu aadama ci biir war may doomu aadama jooji it dafay doon koo xam ne day xam war may ak mbokk ak mbokk maanaam fi ko sunu borom feeñal ñi mu bokkal bokk gi la muy woote bu mu tax mu xeeb leen bu mu tax mu ëppale leen boppam ndax loolu moo indi wa anzir ashirataka al aqrabin war naa doon koo xam ne it fi ko suñu borom feeñal ak ci barab bi muy dundee ñoom lu ñu soppeeku soppeeku moom barab waru ko mën a soppi aw nit waruñ ko mën a soppi waaye buy soppeeku nay soppeeku ci melokaan ba suñu borom bëgg mu soppeeku mu mel ne kon li suñ borom jàngale ci alxuraan ci kooku nga xam ne day woote ci digganteem ak i bokkam mën nañ cee joxe misaal yoo xam ne day wane ne nit kiy woote kat na tàmbulee ci ñi ko gën a jege moo indi wa andir ashirataka laqrabin kooku sunu borom wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax boobu woote bi soreegul waaye sunu borom daf ko orienté ci mbokki boppam mu wóor leen boppam abu hurayra radiallahu anhu day wax ne dafa am bés am ku ñëw ci yonente bi alayhi salaatu salaam ne ko man de damaa am mbokk yoo xam ne dama leen di jog ñu di ma dagg may rafetal jëme ci ñoom ñuy ñaawal jëme ci man yonente bi alayhi salaatu salaam ne ko bu fekkente ne noonu nga wax de noonu la demee sa digganteeg ñoom jàppal ni jamono ju nekk yaa ngi leen di xëppu doom bu tàng jër mi ngi metti ci ñoom lool kon la ngay def bul ci dellu ginnaaw benn yoon loolu nag kon day wone ni kiy woote jëme ci yàlla ak lu mën a xew ay bokkam moom nañ bokk ci ñi nga xam ne ñoom la jiital ci woote boobu te buñ agsee ci li ñu gën a yitteel dëgg-dëgg ci Cheikhul Xadim radiallahu anhu digganteem ak bokkam ci wooteem bi dana ci feeñ wa andir ashirataka al aqrabin nag muy ab aaya ci alquran ulama yi dañuy wax ne invar moom deesu ko def illa fi taxwiif ki koy def moom day xuppe day tiitalaate kon sunu borom dana ko woon na nga wattandikuloo say mbokk na nga leen wattandikuloo na nga leen bàyyiloo xel woote bii nga xam ne yaa ngi koy woote lañ ca war a jëfe ñu jëfe ko lañ ca war a wattandiku ñu wattandiku wax nañ ni keroog bi aaya bi wàccee yonente bi alayhi salaatu salaam dafa dajale ay bokkam waxanteeg ñoom ne leen yaa ma'shara Quraysh ishtaraw anfusakum min allah laa ugni ankum min allahi shay'an jaay leen seen bopp yàlla te ne man kat bu ngeen jaayut seen bopp yàlla amul dara loo xam ne danaa ko man seen digganteeg seen borom di leen lim nag giir par giir di leen lim giir par giir am na riwaayaat yu bari yu ci wàcc bi yonent bi aleyhi salaatu salaam àggalee abu lahab wax ju ñaaw la ca teg ci la sunu borom wàcce saaru tabbat yada di ko ŋàññi di wax ay ñaawteefam ba tuddaale soxna si mu mel ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ngir ñu waxtaane wa anzir ashiirataka al-aqrabiin mënuñoo ñàkk a jaar ci moom su ñuy jaar ci moom it dañ koy def ay étape bu njëkk bi mooy étape bu iqra ku ne xam na ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom la sunu boroom njëkk a waajal avant mu ko jox ndigal ci mu woote ndax njëkk risaala gi daf daan wéet ci xaaru Hira di wéetal yàlla di xalaat yàlla dafa jaamu yàlla léeg-léeg mu def fa weer dellu siwaat ba ni sunu borom yabale sayyidina Jibril alayhi salaatu wasalaam mu fekk ko muy bidaayatul wahyi di ko jàngloo te xamul luy jàng mu jànkonteeg moom ba yonent bi tiit ci boppam doo ko tàmbalee jàng waaye bi mu fa jógee nag indil na ko ay jafe-jafe ci yaramam ak tiitaange mu mel ne ku ab liw dugg waaye bi mu dikkee ci kër gi ku ne xam na ne Sayyidatuna Khadija ni ko kutubu siira yi di nettalee moo def ay nattoom ba xam ne kii kat lii mu gis mooy Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam ma daan dikkal yonent yi ko jiitu woon dal di dalal am xelam daal di koy defal yonent bi daal di tàmbalee nag ay nattu aki i coono ak ay jafe-jafe yoo xam ne sunu borom a ngi koy waajal ngir li ci kanam mooy gën a diis lii nga xam ne moom lay dajal ci Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam bi mu jógee ci étape boobu it ba agsi ci étape bu wa andir ashirataka laqrabin ku ne xam na ni moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu leen dajalee ba woo leen. mbokki boppam yi ko gën a jege dañoo commencé di ko fitnaal boole kook nag di ko fexeel ba am na bis boo xam ne dañoo dajaloo ñëw ci Abu Talib mi nga xam ne mooy bàyyi taxam mooy yor yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko dañoo bëgg nga wax ci sa doomi mbokk mii ndax mi ngi wax nangam ak nangam mi ngi wax ci sunu baay yi nangam mi ngi wax ci sunu yàlla yi nangam te loolu mënatuñu ko muñ bi ñu génnee Abu Talib daal di woo yonante bi alayhi salaatu salaam ne ko ah yow kat sa woote bii damaa bëggoon nga noppal ci sa bopp te noppal ma te bañ ma cee yan lu ma attanut ndax say bokk ñëw nañ fi wax nañ nangam ak nangam ak nangam yonente bi alayhi salaatu salaam xalaat ni Abu Talib dafa commencé néew doole ci protéger gi mu koy protéger ndax ñu ngi teg pression ci kawam yonente bi ne ko maa ngi lay génneel ci yàlla ni ñoo ñii fi bàyyi ko di samay bokk bu ñu faboon jant bi teg ko ci sama loxol ndeyjoor fab weer bi teg ko ci sama loxol càmmooñ ngir ma ngir bëgg ma bàyyi lii ma nekk duma ko bàyyi ba ba ma yàlla di dimbali wala ma dee wutal dal di jooy nag naka mu jooy wan ginnaaw abu taalib abu taalib dal di koy wooluwaat mu dellu si mu ne ko wéyal te loo bëgg a wax wax ko nekkal ci li nga bëgg a nekk yonent bi daal di continuer nag nekk ci ab wooteem ci biiri bokkam waaye téewul nag mi ngi nëbbu woote bi ndax amaguñ doole ngir mën koo fesal ba ñu weesu étape boobu àgg ci étape fas fasda bi ma tuumaru wa arid anil mushrikin fekk boobu ñu ngi daan laqatu ci daarul arxam fa leen daan jaamoo yàlla dawuñ ko fesal waaye keroog bi ko sunu borom subhanahu wa taala joxee ndigal nag ci lañ doog a génn fesal lépp loo xam ne ña ngi ko doon def ci xeeti ibaadaat kon am na ay étapes yu ko sunu borom jaarale mu doog a agsi fii mu agsi wa andir ashirataka laqrabina googu nag dañu gis ne Cheikhul Xadim radiyallahu anhu sunu borom dafa nuróole mbiram ak mbirum yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci anam yu baree bari bokk na ca étape yi nga xam ne ci la yonente bi jaar ci ay wooteem sëriñ bi jaar na ci étape yu mel noonu ndax ku ne xam na ni ak njëlbeenam ak njëlbeenam noonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam daan def di dem ci àll bi di wéetal yàlla di xalaat sëriñ bi ak njëlbeenam histoire saxal na ni daana génn du ñu xam fu mu dem ne ci di wéetal boroomam buñ toogee ba yàgg ñu wëri ko ba gis ko indiwaat yeesalaatal ko ay yéeram bàyyiwaat ko mu dellu loolu ci njëlbeenu sëriñ bi histoire saxal na lool waaye teewul nag ginnaaw bi nga xamee ni sëriñ Mamour Anta Sali génn na àdduna taxawaay bi nga xam ne sëriñ bi taxaw na ko ci digganteem ak i bokkam mën nañoo jàppe loolu état bam bu njëkk ci ab wooteem ndax foofu la waajale boppam ginnaaw bi ko suñ boroom waajalee waajtaay wu mat sëkk ngir mu mën a yanu yan bi nga xam ne moom la ko sunu boroom di yan ndax sëriñ bi moo waxal boppam ni diiru bi may ndaw mësuma jug ci di sàkkoo xam yàlla diirub sama ndaw mosumaa jug ci di sàkkoo xam yàlla ak di ko wër ak di ko gëstu mboolem boroom xam-xam yi wëndeelu naa ci seen biir ànd ak sama yéene ak samay jëf ak samay wax ngir rek bañ a sànk sama sama sama dund ci ab coono dem naa nag ba bi mu àggee ci atum ay sachin ci la doogo nag woote wooteem bu màgg boobu boo demee ci xasida ga sëriñ baa ngi waxal boppam ni walam azal منذ عقلت طالبا معرفة الإله جل طائبا فجلت بين العلماء والأولياء بنيتي وعملي وقولي كي لا يضيع عمري أتعابا لحسن ظن قاد الاحتسابا حتى انصرفت عام أيسش إلى خدمة خير العالمين ذي الإله kon ak njëlbeenam gépp gëstu ak wër yàlla ci borom xam-xam yi ak nit yàlla yi nee na ci la ko jeexal ngir bañ a sànq ak dundam bi mu demee ba sëriñ Mamour Anta Sali jóge fi muy état bu ñaareel bi ci la sëriñ bi nag doog a def première déclaration dajale njaboot gépp ndax njëkk demuk sëriñ Mamour Anta Sali sëriñ baa ngi doon jàngale waaye ku ne xam na ni bokk yi nga xam ne ñoom la nekkaloon ci biir daara ji sëriñ bi daana leen gaaral aw doxiinam ak li ci kanamam ak li mu bëgg ñi muy jàngal noonu ko boroom xam-xam yi di nettalee nga xam ne léeg-léeg muy toppal nit alliwo di ko gaaral nag yoo xam ne miinuñ ko woon ndax ku jàng alxuraan ba mokkal ko di bett nga di ko toppal ne ko lii kat am na solo lool waaye fexe nag ba xalima ak sunu borom bi bu bind ci arash na xalima nga di yëngatoo nga di ko dégg moo ëpp solo lii booba mi ngi leen di gaaral li nga xam ne ci la jëm sunu borom waajal na ko ba waajtaay yu noppi ginnaaw bi sëriñ Mamour Anta Sali jógee nag mu def déclaration boobu daal di woote ca la waxee ne képp koo xam ne li ma tax a jug moo la tax a jug mën ngaa ñëw nu ànd koo xam ne nag njàngum kese rek moo la tax a jug mën ngaa seete feneen foo ko amee li ëppoon ci mbooloo mi dem ña gën a néew ñëw ànd ak sëriñ bi mu sax foofee ab diir boo xam ne keroog ba mu fay jóge ci wa andir ashirataka biin ak ni sëriñ bi doon jëflanteeg bokk yi nga xam ne bi mu wootee ay magam ay rakkam ñëw nañu ay doomi bokkam ñëw nañu ay doomi bàjjanam ñëw nañu ay nijaayam ñëw nañu ñeneen ñu bokkal noo xam ne dafa bokk ak ñoom ci yeneen anam wuy si nañu waaye keroog bi muy jógee Mbàkke Kajoor di sanc si di ñëw Mbàkke Bawal ku ne xam na ni way juróom wi nga xam ne moom lañu tuddee bis bii te sëriñ Saalihu Mbàkke radiyallahu anhu daan wax ne sëriñ bi kët saa bu masaan ne sama sëriñ mi ngi ci tudd mi ngi ci jublu sëriñ Mamor sëriñ mamoor Anta Sali waaye saa bu nee sama baay nag mi ngi ci jublu sëriñ Mbàkke Kajoor keroog bi muy jógee Mbàkke Bari bi muy jógee Mbàkke Kajoor war a ñëw Mbàkke Bawal moom la jëli jox ko dëkk boobee mu yilif ko moom ko ndax moom mooy ki nga xam ne moo waroon a yilif Mbàkke Bawal kon loolu wane na bàyyi xel gu mu doon bàyyi xel ay bokkam ànd ak nag li yàlla def ci moom lépp bi mu jógee foofu ñëw Mbàkke Bawol dafa ñëw ngir wan leen ne am na lu mu indi am na lu ko yàlla jox am na mission bu ko suñu borom di doxloo waaye jaar si na ay bokkam ngir ñu njëkk ñu bokk ci njëkk a yëg loolu donte bi mu ñëwee Mbàkke it ay wuute am na digganteem ak ñi mu fa fekk te wuute yi ni ko boroom xam-xam yi di rafetale ñenn ci ñi fekk si ñoom liñ gis mooy seen mbokk ñëw moo xam ne lam doon ci ñoom ci ak bokk moom lañ bëgg a jàpp jëflanteeg moom ca la waaye donga yi mu àndal ñëwit nga xam ne pas-pas lañ toppee sëriñ bi ñoom it mënuñoo gis kuy jàppee sëriñ bi loolu liñ gis rek mooy liñ bëgg liñ jàppee sëriñ bi kuy jàpp sëriñ bi na ko jàppe noonu te mooy ak taalibe loolu rek moo indi woon réeroo yi sëriñ ba sax fa diir bu gàtt doog a jóge foofu nag dem sañc daaru salaam sancu daaru salaam ak Touba mën nañu wax ne loolu mooy état bam bu mujj ci woote bi nga xam ne dafa matali àdduna bépp bi mu sañcee ñaari barab yooyu fekk la ko jiitu ku ne xam na ni am na abyaat yoo xam ne sëriñ bi liggéey na ko borom xam-xam yi nag wuute nañ ci yan jamono la ko taalif ak fan la ko taalifee loolu mooy delloosiwaat njëlbeenam gi nga xam ne coono bu nekk daj na ko bët bu nekk xool nañ ko ko lañ doon wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam te alxuraan di ko jàngale jàpp ne am xelam dafa matut wala dafa wéradi sëriñ bi jaarale nañ ko foofu digganteem ak i bokkam loolu moo waraloon mu taalif xaalu safihun li sarfi anhumu basari wa raxbati an sawil isaani fii ba xasida gi àgg wax nañ ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci ab wooteem ci njëlbeenam boo dee xool sëriñ bi répété nañu loolu ci ay bayitam yoo xam ne jaarale nañ ko foofu ci digganteem ak ñi nga xam ne ñoom la doon woo jëmale ci seen borom subhanahu wa taala mu mel ne loolu mu leen tontu ci biir xasida bi moom sëriñ bi lim tontu bokk yi la yonent bi alayhi salaatu salaam tontu woon ay bokkam ci ne leen ishtaraw anfusakum min allah laa ugni ankum min allahi shay'an day méngoo ak li sëriñ bi tontu ay bokkam ci xasida gi ci ne leen maali gadan hiina asrailu yaqbidu nii ruuhi nasirun siwa mawlaaya fil usri man kat sakkuuma ndimbal ci kenn ku dul yàlla la ko jiitu mooy maali siwa llaahi ida ma lahdu gayaba wa jaani lmalakaanu addahra min wasari saa ma demee ba ñaari malaayka yi di ma dikkal muy munkar ak nakiir amul kenn ku ma yaakaar ku yàlla la ko jiitu mooy in kaana in kaana aybiya zuhdun fi hutaamihimu fa zaaka aybun nafisun laysa yuxnii nii nga xam ne yañ ko doon xeebe ak yañ ko doon ŋàññee yépp sëriñ bi wan na leen ne amu ci soxla waaye nag bokk yi nga xam ne mi ngi leen di woo bu ñu wuyusee seen bopp bu ñu wuyusi moom digganteem ak boroomam yaakaaru ci kenn ku dul yàlla loolu nag danañu indi ci ñu indi ay nettali yoo xam ne yu histoire saxal la wane na sëriñ bi bi mu wootee njëkk naa woo ay bokkam waaye nag li mu yor ak bokk ma yewu ko njëkk naa woo ay bokkam waaye li mu yor doon bokk taxu cee jot loolu waxante gam waxante woon nag sëriñ ma roqee Buso sëriñ ma Sàmba sëriñ falilu ca Mbàkke ca Mbàkke Baari loola day dëggal ne kon sunu boroom jox na ko loo xam ne adduna bépp ci bokk yam loo ko jege-jege te jaayante woo jébbal ko sa bopp du tax nga mën cee jot loolu nag mooy lam tënkoo ci ne leen du ma bàyyi kenn duma ma maami kenn du ma nijaayi kenn du ma kenn du ma magi kenn du ma nijaayi kenn loolu nag dégg yi wa gën a rafet ci dégg yi nga xam ne boroom xam-xam yi déggee nañ ko ci mooy lim yor doon doon doom taxu cee jot lim yor doon jarbaat taxu cee jot lim yor doon rakk taxu cee jot ndax sëriñ bi ko fonkoon ak bokk la ba nga xam ne ne wax naa léegi sëriñ Saalihu radiyallahu anhu nee na bu masaan ne bàyyi rek mu ngi ci jublu sëriñ Mbàkke Kajoor ñi nga xam ne dafa bokk ñoom te daan leen bind ay leetar it kenn ku nekk daf daan bànneexoo cër ba nga xam ne moom nga am ci moom jaar ci cër ba directement sama doomi bàjjan sama doomi nijaay sama doomi bay tax kon cër yooyu sëriñ bi nangu woon na ko waaye li yor nag doon doom wala doon mag wala doon jarbaat taxu cee jot ñooña ca lañuy jaayante jébbal ko seen bopp la mu yor sëriñ Fàllilu gën a fisal ak jaayanteem bind ay abyaatam jaay ak njureelem jënde ko ak taalibe ña ca des it noonee lañ ko defee jaayante sëriñ bi jébbal ko seen lépp ngir mën a jot ci li li nga xam ne sunu borom da ko koo jox ta mu mel na la sunu borom joxoon yonente bi alayhi salaatu salaam nga xam ne gëm nangoo topp tënku ci sart yi mooy tax nga mën cee jariñu loolu wane na ni yonente bi alayhi salaatu jox na ko ndigal ci mu fésal ab wooteem ci biiri bokkam ci biir aw nitam waaye ci biir képp koo xam ne ci kanam képp koo xam ne nangu nga ab laa bu dee nag <coughs> ñi nga xam ne dañu aju woon ci moom ak i bokkam ni nga xam ne noonu la sëriñ bi doon jëflante ak ñoom xam nañ ni sëriñ bi ab wooteem mi ko feeñal ci biir yi mbokkam ba muy woote ay bàyyi taxam ñi ngi ci kanamam ba muy woote ay doomi baayam ñi ngi ci kanamam waaye nag sunu borom tànnal ko ca ñam ko tànnal boole koo ñam ko booleel ci waa jamonoom ñu wuy si ab wooteem ànd ak moom teewul ñoom ñépp kenn ku ci nekk sëriñ bi di sàmmonte waruma ak teggiin sa diggante ak moom waaye rawatina ñi nga xam ne ay mbokki boppam la moom Cheikhul Khadim radiallahu anhu wax na ci masalik luy jëmmal loolu te li ko firndeel day wax ne al adaba al adaba summa al wa huwa an taburra umman wa aba teggin ba teggin jeex mooy nga topp sa ñaari waajur wal amma wal ammata wal axal kabir wa cheikha inna sa ñaari waajur waaye teggin dëgg mooy nga jox worma say baay ak say bàjjan ak say bokk ñi la wër ñëpp kon sëriñ bi ma ci nga xam ne mi ko doon joxe day koo xam ne la muy digal nit ñi moo leen cee jiitu lépp lu mas a digal nit ñi ci ñu def ko ci lu baax fekk na mu jiitu leen ci ba noppi loolu nag feeñ na ci digganteem ak ñi nga xam ne dafa bokkoon ak ñoom sëriñ Mamour Anta te ñu féete ko ak mag ku mel ne Serigne Mame Mor Diarra wax nañ ni fu mu mas a tase ak Cheikhul Khadim kenn ku nekk ci ñoom ñaar sëriñ bi dana sàmmonteeg moom <coughs> war ma ci dox digganteem ak moom ngir ne magam la te loolu la ko sharia digal kilifaam la ci wet kooku waaye Serigne Mame Mor Diarra yi dana sàmmonteeg sëriñ bi ci wàllu xaqiqa cër bi nga xam ne sunu borom def na ko ci moom. ba wax nañ ni buñ masaana dana ñu teg laltu seen diggante kenn du ci nangoo ngir kenn ku nekk dafay wormaal moroomam ngir lim doon ci moom ñi nga xam ne it dafa bokk ñoom te féete leen mag noonu la leen joxe woon war ma la leen wóoloo woon ci lépp kon man nañoo wax ne ni suñ boroom waajale yonente bi alayhi salaatu salaam waajal jëmmam ba mu nekk saalix doo ko nekk muslix te mbooleem anbiya yi ku fi yàlla mas a yónni ci loolu la la yónni mooy nga defar diggante ña la yàlla yónni ak seen borom jëli leen ca la ñu nekkoon boole leen ak seen borom subhanahu wa taala yonente bi alayhi salaatu wasalaam sunu borom waajal ko ci loolu waajal boppam waajal ay bokkam ñam doon woo wuy si ko mu defar leen seen diggante ak seen borom cheikhul xadim radiallahu anhu it noonu la sunu borom dogale mu woote ci biiri bokkam ci jamono bu mett ci jamono bu doy waar waaye yàlla tànnal ko ca ña ànd ak moom mu fexe ba lañ ko toppe woon ci seen diggante ak seen borom sëriñ bi wan leen te lu leen doy sëkk ña ko wuy si te nga xam ne duñ ay bokkam waaye bokki lislaamam lañ kazalika bokki boppam yooyu kii ñu tudde bis bi di sëriñ Mbakke Kajoor kenn la woon ci ñoom relation bi doxoon digganteem ak sëriñ bi ak ni sëriñ bi daan teeg moom loola xëy na docteur Serigne Khadim Sylla dina ci ñëw waaye doy na ci firnde muy sëriñ bi considéré ko muy waajuram di diisoog moom jëlit ci ak njabootam ñoo xam ne da leen a boole ci waa këram jàpp naa ne wax nañ ni moom sëriñ bi dëkkoo woon na ci waa këram lu mat ñeent loolu nag am na lu muy jëmmal am na lu muy firndeel mu yëkkati it ak njabootam jébbal sëriñ bi ñu doon ay dongaam ni ko ñëpp defe fa su sëriñ bi nekkit mu fekk ko fa gane si ko fa fekk si ko Tuubaa fekk ko Ceyeen Jolof mu mel ne kon am na lu doxoon seen diggante donte waajuram la moom teel naa xam sëriñ bi teel na koo nangul teel na koo bàyyi xel te sax wax nañ ni sëriñ Maam Mor Anta Sali daf ko ko féetale woon sëriñ bi nag yooyu daf ko doon sàmp ndax ndeyam ñi nga xam ne dañoo doonoon wóllëre seen diggante ak sëriñ Mamour Anta Sali rek sëriñ bi daf doon sàmm loolu ci ñoom rawatina nag koo xam ne daa bokk ak moom ba noppi wëlbati ko féetale ko sëriñ bi kon loolu sëriñ bi mi ngi ko doon bàyyi xel mi ngi doon bàyyi xel bokk gi mi ngi doon bàyyi xel bokkuk lislaam gi mi ngi doon bàyyi xel teggiin yi nga xam ne mi ngi koy jàngale te moom moo ci jiitu ñëpp waaye mi ngi doon bàyyi xel woor ma ji nga xam ne mi ngi koy jàngale te moo ci jiitu ñëpp ku mel noonu nag woote woote bu mel noonu ci biir lislaam woote ko ci biiri bokkam sunu borom defal ko ci ndam loo xam ne àdduna bépp teg nañ ko bët mu ñaan yàlla <coughs> yàlla protégeel ko woote boobu ginnaawam ba lu jamono soppeeku soppeeku dara lu koy yàq bu mu tàbbi ci biir woote bi ñu ne ci biir woote bi di ak njabootam moo xam di ay sëtam moo xam di ay taalibeem war nañoo fexee xam loolu ràññee ko ba lépp lu koy tilimal wala mu di ko yàq du jaare ci ñoom kon lam dénkaane woon ca Jolof te sëriñ Abdul Xuddus moom Daarul Muhti di ko nettali mooy kenn ku nekk ci ñun rek lam ko war a sagale lam ko war a delloo ci njukkal mooy fexe ba waxuma yëpp yoon wi di ko jaare ci yow waaye benn baat wala benn image boo xam ne danañ ko sànn yoon wi tam jaare ci yow kenn ku nekk ci ñun war naa fexe ba mooy tandiku lool li gën a métti nag mooy nga dégg lu ñuy wax ci liggéeyam bi di ko adressé yoonu murit wala ñu di ko adressé sëriñ bi muy wax joo xam ne nit mën na cee sukkandiku di wax ci yoon wi lu ñaaw mu wóor la ne yow lii mënoo koo layal ndax kii wax kat am na fu mu teg tànkam ba wax te ka wax wax ji ci biir yoon wi la bokk loolu kenn ku nekk ñun war na ko wattandiku kon li am solo mooy nañ bàyyi xel ne jëmm la woon joo xam ne fa yonente bi alayhi salaatu salaam tegoon tànkam la tegoon tànkam la yonente bi doon woote la doon woote yàlla la defoon muy buuram. mu nangul ko nguuram wane tawxiid yu ma sëkk digganteem ak boroomam yonente bi alayhi salaatu salaam la defoon muy ab yonentam wóolu ko jaar ci aw yoonam ndax man abada gayra allahi fa sa yaalamu annahu laa ilaha illa allah wa man abada allah bi gayri sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa sa yaalamu anna muhammadan rasulu rasulullah loolu kon day wane ni mu jàppe woon yàlla ak yonente bi diggam ak alquran jëlale nañ waaye digganteem ak mbooleem niti yàlla nga xam ne bokk na ci fooram moom Cheikhul Khadim li cër bi di màgg-màgg keneen ku yàlla joxub cër mu nangul la ko lu way am ci sa borom nangul na la loola te wàññiwul dara ci li ko yàlla may kon nañ nangul ñeneen ñi am la leen yàlla may te du tee li ñu am ñu am ko waaye liggéeyam bi nag nañ fexe ba lu ñu mën ci protéger ko ko ci seetal ko ci sellal ko ci wane ko ñu di ko def te bañ a nag bokk ci ñi nga xam ne saa bu seen kàddu jibee ñu ne déggal li murid yi wax saa jëfee ñu ne xoolal li murid yi def te buñ nee dégg li murid yi wax wala xoolal li murid yi def mu doon loo xam ne ku ci sukkandiku ngañ yoon wi it ku koy layal da koy layal rek ngir bëgg koo bëgg yoon wi waaye nag kay wax am na fu mën a sukkandiku ba mën a wax dégg ngeen ci jamono yu mujj yi yu bare bari yu xew yoo xam ne mbooloo ngi attaqué yoonu murid di wax ci ñoom lu ne te dara warul ko lu ay jëmm yoo xam ne la ñuy wax ak la ñuy def ñu ngi koy adressé sëriñ bi te loola wuuteeg li sëriñ bi doon jàngale ci tawhid wuuteeg li sëriñ bi doon jàngale ci sharia islamiyya ñii nga xam ne ñoom la ñu tuddee bis bi kon ñu ngi leen di delloo njukkal di leen sant ci teewaay bi di leen sant ci taxawaay bi ak yëggee yittewoo gi di ñaan suñu borom kàddu yi mu néew mu gudd liñ bëggoon a xamle rek mooy sëriñ bi diglewul lu yonent bi diglewul téerewul lu yonent bi téerewul wuute wuute ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dara léppam yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquraanul karim keneen ku ne ci leneen yaa ni ci leneen ku woote leneen yaa woote leneen waaye lii mooy Cheikhul Khadim radiyallahu anhu yàlla ñu ko yàlla fayal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu